laay ah oui euh, non rajo yéwén na. sama micro encore yokkal. mbay bàyyi bàyyi yu sew yi ngay def mbay. Euh, yow tey maa wàcc nga def revue de presse. déedéet déedéet mbay bàyyi ma wàcc. déedéet bu mam yokkal. loolu loolu du ma ko nangu. parce que boo wàccee mooy wàcc naa. te xoolal nee na nee na ci moom la woon mu ngi. mu excusé wu. ndeysaan na yokk na seen i waaw parce que man mbay sax li ngeen koy waxal lépp def ko. mbay yaa sama xol bu rafet. li ngeen koy waxal lépp def ko <laughs> mais rajo nabu. Mhm. rajo amul média bu ko dàq ci àdduna. Mhm. man dama nam ma rajo sax. Mhm. il a fallu ma dem télé pour ma rendre compte ne ndeysaan man man daal sama. sama sama yaram rajo la bëgg. la liberté en rajo. rajo laa nam mit bi nekk ci rajo bi yooyu laa nam orchestration bi dama koo nam dama nam rajo. ay eh, waay yéen ñi yor rajo recruter leen ma waay en passant duñ ma recruter. waaam waaw da nga bëgg a def rajo da nga a def rajo rajo yëgoo ni léegi ñii ñuy def xale live c'est vrai nga xamante ne da ngay mën a def rajo en même temps waaw aussi soit live mën daa xam nu mu ma de rajo laa nam ma ak ay bouton comprendre ma de traditionnel rajo maanaam rajo ak table am table de mixage rajo laa nam ma daal studio waaw comprendre nga takk kas oustaz xam na li may wax. ah taw mi sa soppi dama benn affaire. <laughs> Ah, waaye rajo dafa neex. rajo kenn du moom rajo tubaab fakàll macha allah dama nam rajo nag ma sànjaat rajo. même bu deux ans moom daf fiy nekk ala kulli aal. mais il faut ma am rajo sa da ko dudd. maa la ko wax de sama yaram danaan tàng oustaz yee mhm. danaan tàng léegi damaa soppeeku nag. DG de nee na bientôt nee nga am soppeeku. ku loolu rajo rajo ah, wax lii. tubaab fakàll macha allah aan loo wax def nga ko de xoole woo ba jël daare kon boo ne di ubbi rajo gëm naa ko kon te ma laa xaar bàyyi ma xaar la DG yow loo bëgg loo bëgg naa a mag a mag boo a ah, infos point a yaatu su ko mhm. defee xoolal ñu gën a renforcer équipe yi sax yeneen i feem ñëw yeneen i nit ñëw tubaar fakkaal la ñëpp xaj di mhm. loolu nag balaa moo am il faut ñu may yeggali bi xool dafa am ñaari internautes yoo xam ne dama leen gëj a gis Anita ak Itachi 33 j'espère que yéen ngi ci jàmm bu baax a baax a baax ah. Anita ak Itachi Itachi non am xoolal Anita yow Itachi 33 ak Zeynab. Itachi 33 ak Zeynab Itachi 33 ak Zeynab. dañoo gëj a dugg voilà gëj nañ a gis. bu baax fu ngeen ne. ani ngeen. Itachi ak Zeynab. Zeynab la guerrière. xam nga nag ci ci waaw waaw boo xoolee Majey Johnson. ndeysaan Medoune ndeysaan Waat Fall Saliou ah, euh, am na ci kenn nag sànq. voilà am na damay gëj a lire commentaire yi waaye lire naa ci kenn mu ne ma mi Samb dafa sot ah, ni ñu ko jëndal ci siru Gàmbi bi kooku sama noonu la. kooku considéré naa ko comme sama noon parce que kooku sama faatu fa yàlla la a paasam. kooka na nee na dama sot nañ ma jëndal ci siru Gàmbi gi xam nga kooku daf may. kan ma wax loolu. am na ko ko fi wax. déedéet bu yéene loolu sama mag yi ci internet xaw ma nu mu tudd sama noonu la. Hmm? Ah, wuy ma kooku bu may woo noonu oustaz jàppal. xaw ma euh, siro Gambie xaw ma waaye siro yi ne Sénégal kanoo fajee siro daal xoolaat ka. Mhm. siro jamono bii xoolaat ka. man ma naan siro dama ko dépassé man naan siro man lu ne ci siro yi. ma ne ginnaaw mbirub siro la. moo tax yàlla ñu yàlla sàmm yàlla rek ñu dimbali. kon xam naa fa lay jaaree siro yu bëri am na am na am na doom de. mais man damay naan siro man. waaw am na yu bëri am na doom. te am na siro yoo xamante siro yoo woon. waaye ma ma ma ginnaaw mbirub sirop la te mu ngee faat moytu leen rek sirop yi. alaaji ba ba ci terpon. terpon neex na de. di di njër lépp laa faj. ay terpon terpon terpon terpon li ma fëgg fa laa ko per terpon kenn xam lu mu toll sama yaay nëbb na fu ne. dafa sucré. neex saf wante. <laughs> ma jël yëf yi yow def ko tàngalu ndox boole ma ci wax. fu meer gëstoo rek mu. nga nga boo paree ne tat boo paree ne tat. dóor. <laughs> di nelaw mel ni ku. naan ku naan suuf suuf. moom daal dafa mel ne kon ci gàmm lañ nekk. ah. policiers yeeg gendarmerie nañ mel nañ mel na ay douaniers. dëgg la. saag bu ñu xool wóoluñu ko nañ ko ubbi xool. ñu xool si yi. waaw dëgg la. police kanam saag bu ñu jàpp wóoluñu ko. dañ ah. ko mënoo ñàkk ci réew. ndax aussi fu nekk la nit di jógee. dëgg la dañoo bari pexe di gàmm see Sénégal bari pexe sax. nit fu nekk la nit bu ñu xoolee. wax nga dëgg de euh, Medina Baye xam ni nit ñi dañuy jógee Niger. Mm. Nigéria Gambie dafa bëri taalibe ci sous région. wallaay wallaay taalibe fu ne la ñuy jógee di di di gàmmu si il faut kon ñu ñu gën a vigilant. wallaay wallaay parce que garab yi mën naa jaar nga ni. déggoo li mu wax nee na na policier yi gendarmerie yeeg yëpp nekk douane mm. boo ko waxee dinañ ko def oustaz xam naa ci ñoom xarañte goo xamante ni tubaar fakkaal la. Mm-hmm. lu ñu jublu te caaxaanu ci rek. ah loolu de lu ñu bëgg jàpp jàpp ko de. mami caw caw nee na déet waaye mami amoo fi noonu ankay ankay kooku ci commentaire yi bind na mu ne mu ne mu ne daa juum mu ne la juum ko bindoon a ngi nii nee na damaa juum baal ma ñaari revue des titres am fi njaga mbay bi ma jàkkaar loolu ak non njaga moom mu ne nañ ma jox ci siro gam bi kooku sama noonu la kooku daa bëgg ma fa fayal xaw ma kan la ci nag nee na maa ngi jéggalu maas la tudd daal maas xaw ma nan maas dee xaw ma maas xaw ma nan am na mu tudd daal yow maas moomu sama noon nga waaw ñun nag comme dañoo war a dem dañoo war a dem ci waawan ñi dañoo war a dem Gambie eh, eh. ay ah, waay waay waay waay waay si roba ca Gambie yàqu naa nekk na sama xel lépp mooy yàqu naa yàqu naa <laughs> ay eh, waay oustaz ñaanal ma balaa maa commencé defal ma kii defal ma kii ausbillah min seytaane yaa ma yàlla musal ci siro bi li mu faat bari na de soixante soixante six xale ah. non dafa ëpp tàllal leen loxo salaamun salaamun xawlan min rabbi rahim salaamun xawlan min rabbi rahim bismillahi rahmani rahim bismillahi rahmani rahim le journal ñëw la ci équipe d'attaque oui oustaz yaa doon laaj équipe waaw